Paris yeah Europe man hey yow xaañ conc kër dëkk xët mu mel ni raay ci man ki raay du kocc dëng te xët doo mën ba daay man te daay man laay mës di doon ci yéen ba daay man li ma liggéey wees romb li ngeen di woowee gaay yi man da ngeen a ñàkk xorom te seen rob ni duuli bàyyi ma no bitch bul ma la ngaamu bàyyi ma forcé la dul sa yoon càng danga kaafu bàyyi ma du ñàkk danga ma réere mbir man la sa maam Ibrahima boobu daal